ak nuyoo bi di ko teg ci ki nga xam mooy suñu kilifa ànd ak ñun mu jiit délégation président Pape Diop ak délégation bi mu àndal yépp ñu jël nuyoo boobu teg ko ci ki nga xam mooy délégué de quartier bi délégué de bi nga xamante ni tey moo fi nekk di chef de àll àll si la mi nga xamante ni tey ku ne xam na si liggéeyam ci marché bi ak ki nga xam moo jiite association bi ak mboolem ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci marché bi jataay bi nag jataay la boo xam bu am solo la ndax président Pape Diop bi nga xamante ni mbir mi xew na fekk ko fi dafa fekkoon mu génn ma jàpp bis bëgg fee ñëw mu xam ma ni ma moom mooy ñëwal boppam ndax lépp loo xamante ni xew na Touba nekkutoon ci réew mi waaye dana bàyyi itam yëpp ñëw fii bokk ak yéen. waxtaan ak yéen wax na li nga xamante ni mooy xalaatam ak solution yi ma def ba nga xamante ni lii nga xamante moo xew déetu fi xew wala ëllëg bu xewee tamit dana deme ne du dul nii di leen massawu di leen jaajëfal seen gëm yàlla ndax li Serigne Mountakha wax rek jeexal na wax ji mooy li fi nekk Serigne Touba ko fi defoon Serigne Touba jógu fi kon ñu ngi leen di massawu di bokk yéen naqar wi te xam ni marché bi ku ne xam na ni ni mu demee doy na waar am na loo xamante ne sax mënuñu ko wax. waaye nag nit du nekk si naqar daanaka nga nekk di wax leneen en tout cas daal suñu ñëw tey bi mooy ñëw bokk ak yéen li ngeen li leen dal massawu leen président Pape Diop yëkkati li nga xamante ni tey moom la leen di jàppalee jox leen ko bokk ak ay xalaat ñu fas yéene defaraat marché bi tegaat ko si yoon ba nga xamante ni tey di dem nii ndax xale yi fi nekk dañuy jaan seen doole ay. salaamaaleykum mbokku taalibe yi maa ngi nuyu Serigne Mountakha Mbacké. suñu yaakaar suñu xalifa maa ngi jaare ci moom di nuyu njabootu sëriñ Touba yëpp fàttewuma sama sëriñ sëriñ Cheikh Abdou Khader Mbacké maa ngi nuyu délégué marché bi àll si la ak ñi mu àndal ci liggéey bi yëpp ci nuyu waa marché bi yëpp nuyoo bi maa ngi koy def ci sama tur waaye ci turu délégation bi ma àndal ñu ràññee ci son le député Cheikh Bara Dolly Mbacké ràññee ci l'honorable également Fatou Kiné Mbaye ràññee ci jigéen ñi Mariama Touré ràññee Serigne Bara Balla Faye ku juum ma jaare ci ñoom wax ni délégation bi yaatu na mënuma tudd ñëpp waaye ñi ñëw yëpp gis naa leen te ci seen tur laay nuyoo euh, tey nag dañu ñëw comme ni ko Cheikh Abdou waxee bi mbir mi xewee nekkuma fi Fatou Kiné Mbaye woo na ma ma ni ko nekkuma fa Cheikh Abdou bi woo ma ni ma dama fay dem ma ni ko toogal xaar ma bu ma ñibbisee dinaa fa ñëw waaye jour boobu ma raté avion ñibbisi wu ma kon bi ma ñëwee bërki bi guddi ma woo leen ma ni leen altine bu neex yàlla dinaa ñëw fii bokkat ak na xar bi ak yi nga xam ni moo dal ci waa marché bi fii waaye comme ni ko Cheikh Abdou waxee Serigne Touba mi ko fi def jógu fi euh, marché yi nag ci Sénégal bii mooy lakk mujj bi waaye série bi gudd na Euh, war nañ ci am ay xalaat yu yaatoo yaatu ba nga xam ni marché Sénégal dootul lakk euh, mën naa wax ni président makisal am na programme de rénovation et de réhabilitation des marchés waaye programme boobu bañ ko waxee ak léegi boobu ba tey kenn gisagu ko euh, ma wax ni. programme boobu pour man du programme bi nga xam ni moo gën ndaxte àddina dafay dox gis nañu surtout actuellement bi ñu jógee ci pandémie bi xam nga notre économie actuellement est à terre ce qui explique la rareté également des ressources kon bu fekkee ni programme étatique boobu la ñu war a topp lu gudd lay doon te Sénégal urgence la ñu tabaxaat marché yi réhabilité leen réhabilité ba nga xam ni lii dootu fi am mbokk Touba wax dëgg yàlla lii am fii metti na trop ñu ngi leen di masawu bu baax a baax ah li am nag mooy comme président Macky Sall nee na dina ko defaraat très rapidement ñu ñu ñaan très rapidement mu ñëw mais defar bi dafa am ay conditions parce que foog ñu ñëw waxtaan ak waa Touba yi techniciens yi. seet ni ngeen ko bëggee yéen itam ngeen joxe seeni xalaat waaye toog Dakar rek ci bureau yi defar ay plan ñëw imposer leen ko loolu aussi yaakaar naa ni du defar dara kon nag ñu ngi ñaan loolu euh, bu ko déggee marché bi am na responsable mu ñëw ànd ak responsable yi ak élus yi nga xam ne ñoo am ñoo nekk Touba parce que ñoom itam am nañ ci seen xalaat ngeen bokk liggéey ba ëllëg ñu def fi marché bu mucc ayib parce que yaakaar naa ni marché Touba nekk na loo xam ni ci économie Sénégal képp kuy chef d'état rek war nga xam ni du marché rek mais marché la boo xam ni bu buy liggéey ci économie la parce que bu ñu seetee sax ci campagne agricole arachidière li ci commerçant Touba yi di liggéey ci Sénégal lu am solo la kon loolu moo tax ma yaakaar ni il faut que mu associer waa Touba yi pour mën a reconstruire le marché Ocass de Touba. fas yéene dalal suñu mag suñu mbokk taalibe di lu ñu kontaan di ko dalal nag ci dëkk ci dëkkam ci wàllu taalibe ndax. bu teg taalibe moo ñu ci mag kon tamit ñun dañ koy dalal rek ci wàllu taalibe gi bañ a dugg moom trop ci politique bu mu ëpp ndax suñu mag la suñu lépp la daal limu ñuy diggal dégg nañ ko lim ñuy xalaatal dégg nañ ko kon ñun ñu koy daal wax ni ko ci suñu magub taalibe bi mu doon nu ngi koy wax ni ko ci wàllu boobu ñu ngi ko ci bàyyee xalaatam mu xalaatal ñu nag ci lu bari tamit dama ko ñun Touba dafa am lu nga xam ni dafay xew Touba day dëkk bu nga xam ni spécial la bari na lu fi waay yéene bëgg ko te xëy na danga ko bëggee doo ko ni mane parce que loolu fi ma ci duggee mooy gis nga ku fi yor kër këram mu mel na mu war a mel waaye taxul mu mën koo joxe banque ñi fiy liggéey ci marché bi tamit nekk ay commerçant muy mag ñi muy ndaw ñi am nañu yàkkamti ñu defar mais am na ñooñu tamit yàkkamtiwuñ parce que tamit ñoo moom seen alal te defaru marché daanan li ciy xew muy mën nga koo defar soo ca noppee ña ko moomoon mën naa am du dellu si seen loxo maa ngi fàtte nag suñu sëriñ Cheikh Abdou Bara Dolly war naa ko nuyu dalal ko ndax tamit comme ñoo bokk dëkk bi xay na bokk ci lu ñu yëngu moom ñu ngi koy jox cër bi ko bi ñuy jox suñu kilifa rek di ko dalal ak jàmm di nuyu nag délégation bi nga àndal yépp itam waa marché bi daal xamal nañ la ñu ngi sant ñu ngi kontaan ci yow parce que ñëw nga pour bokk ak ñoom naqar bi te li leen dalit mu dafa metti ba ca kanam suñu borom kon nag ku ñëw bokkoo ak ñaw rek xamal ne ñu ngi lay bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatulah. sa sëriñ ba sëriñ Xaadim nee woon jàmbaar amul ku ñu ngi am. yàlla na sëriñ Tuubaa di ngi boppam ba li ngay yóotu nga jot ko yàlla na sa yaakaar tas ci Tuubaa. sëriñ Tuubaa kon ñu ngi noonu ñu waajal wax ci jublu. Matadi kër teraani lawliyaa. weedi laajal xayrul anbiyaa weer keraan lil awliyaa weer dina jal xayrul anbiyaa